revue de la presse sur M7 TV. heure bu baax bi jot na fii ci M7 TV dañ leen di jukki li gën a fës ci yéenekaay yi doore ko ak tribune mi fësal ci xëtam bu njëkk yokkute mi njaay mi am ak dund gi tax na góorgóorlu yi maanaam ñiy taaba taaba sonn nañ bay bëgg a dee produit buñ daan amee téeméer mënuñu xëy xëy muy jar téeméer ñaar fukk wala téeméer ak ñeent fukk nguur gi moom mel na ni ku ci sippi loxoom ñi fare ci direction commerce intérieur moom mel nañu ku yëgul li xew ci réew mi source su di wax ci jafe-jafe yi askan wi di dund ba tey moo ngi xamle ni xëccoo gi am ci diggante nappkat yi ak direction gi yor wàllum napp gi ci coowal licence loolu tax na ba jamono yi jën manqué na lool loolu la askan wi di dund témoin di wax ci wàllum politique ne ginnaaw gi ñu mbaale Pape Diop mu dem fële ca benn Bokk Yaakaar Khalifa Sall mel na ni kuy bëgg a napp jëmale fële ca géejug Benno Bokk Yaakaar loolu la journal bi xam la nee nañu jamono yi mu ngi ci secret ak ay mbuxum yu metti Le Quotidien ni mënatul deltu gannaaw de moo tax mu ni ci saal doo au mur ndax li journal bi xamle mooy jamono yi lu dul ànd ay transhumance ci partem bi ñoru ko mu def andil na ko ay jafe-jafe bu baax ci wàllu politique am Walf Quotidien ni gisante bi nga xamante ni PS bëgg nañu koo gisante waat maanaam ab retrouvaille xeeñul neex de ndax mel na ni buñ ko toppee bu baax mën na leen andil ay jafe-jafe maanaam ab danger ci seen coalition bi laas nay Wade le Phénix maanaam mooy champion ci politique ginnaaw at mu ci def ba léegi boobaak léegi xam-xam bi moo ngi fi te tey la waalo gën a aay Sud Quotidien ni Macky Sall moo ngi ci gudd yu bët setagul maanaam ab casse-tête ndax législative yi ñu génn xeeñul neex ci moom benn yoon te lim ci doon xaar yëpp gisi ko direct ci kàddu yi moo du Fall leader coalition sàmm suñu réew nee na président Macky Sall moo ngi ci mandaam bu njëkk maanaam mandat wu cinq te itam bu ko yoon mayee loolu dina présenté waat te bis bu présenté waat yi dinañ topp ci gannaawam daan wax ak ndaw yi aussi ñu topp ci gannaawam ngir ñu mën a liggéey Sénégal mu jëm ci kanam bés bi ne le 12 septembre la ñu fas yéene dem assemblée def installation wu député yooyu ndax ñu mën a door liggéey bi loot ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkk fësal quartier yi nekk ci Ndakaaru di dund ci mbënd mu metti mi nee itam bu réew mi itam fësal na itam euh, ña fa nekk ci ay jafe-jafe L'Obs yamul foofu ba tey wax na ci kàddu yi démb Rousseau yëkkati nee na Macky Sall jamono yi ñu ko wër ñëpp ay traître lañ loolu moo waral lajj bi ñu lajj ci élection législative yi lii quotidien ñëw ak ñun ci coowal mi Sénégal li fi amoon ci fan yi ñu génn moom mi ngi doon xamle ni dañu koo sàkku mais ginnaaw information yu ñu amaat mi senegal bi di Fatoumata Dione mosuñu ko sàkku loolu la ñu bi dorat ay activité am réew sport ne porte de sortie la Abdou Diallo di wër ngir dem Angleterre ndax ay fan a ngi nii wul ben match dañ ko tek ci banc bi suñu lamb lay teje ak lamb ji doxon ci digënté Balla gay de ak Gris Bordeaux nee nañ moy meilleur lamb ci cour des grands bi ndax technicité attractivité ak combativité jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen di jox tik dajé ci yeneen yene kay sur la M7 TV jaa jëf.